Le bi jàllee nous ñu ni dañuy def comité de suivi comité de suivi boobu euh, ñi ko ëmb moy Ageroute ak maire bu Cambérène ak chefferie bu Cambérène ñu dem Azuroute le 2 mai 2019 C'est une direction Nous voulons trouvé ba trouver solution Nous ni liggéey bi dina en décembre ñu tok ba mois de mars le 5 mars 2020 ñu bind leen une lettre de relance le 17 septembre Omar Youm ñëw na fi mais boobu ñu tànn ñu leen neex pour ñu recevoir ko moom bind nañ ko lettre nangu nu recevoir démb nag dëgg nañ ko muy wax ci rajo bi mais ni ñu koy xamal leen na rek mooy liggéey bi ni mu taxawee ni arrangé wul waa dëkk bi parce que Cambérène kenn mënatu fi ñëw lu tax embouteillage baa ngi nii du sonal nu du pollution baa ngi nii du sonal nu pour nga ñëw Cambérène am taxi sax du problème la da ngay fay 5000 wala jëm kaw sinon doo dugg ak Cambérène Azurut nag bind na leen lettre tontu wunu woo nañ leen faale wunu lu dul di wax ci ay rajo te xam nan fi ñu war a ñëw pour wax ak ñin war a waxal na rek lañ leen di wax mooy ne que télé une semaine lañ leen jox pour ñu recevoir comité bi nga xamante ne mooy comité de pilotage bu liggéey ñu wax ak ñoom lu leer parce que BRT baa ngi commencé déjà ñoom tàmbali nañ fi ay liggéey yoo xamante ni cité kër góor gi dem ngeen fa am na ñaari pont yu fa tàmbali liggéey ka mu pare tali baa ngi nii ñu bàyyi depuis deux ans mu mel ni Cambérène bokkuñu si dëkk bi te li si gën a ñaaw mooy dan naan waa doomu dëkk bi ñoom ñoo bañ ñoom ñoo bañ du projet bi non Cambérène baareewuñu dara Cambérène dañuy souffrir ñu ngi sonn ñu ngi dee Cambérène bañul li fi ne. comme projet bi weñaar nañ suñu loxo ñu def ko fi nan ka defee ci anam yi waa Cambérène bëgg beneen bi si des projet bi boo xoolee relais relais Dakar ba Tivaouane Pël amul fu ñu yëkkatee ay nit kër amul Cambérène rek la am ñu yëkkatee ay nit te fay bi leen fay baaxul bu du woon ak leen kaas du leen jox ay terrain tout récemment même pas trois mois leneen li si des mooy asuru danoo yab Ibrahima Ndiaye le directeur weew la ñuy waxal dag ni nu woon chaque deux mois dañuy réunion dara amu si gisuñu si dara dara amu si sax jëbu toll nii kenn protégé sécurité amatul à Cambérène ba pare oto yi dañuy ñëw di dévier di dugg ci mbedd yi di mbëkk suñuy doom scooter yi di fi jaar di fiir suñuy xale boole kaak benn du insolence boo xamante ni kenn xamul mais donc kon du problème bi lan la problème bi du Cambérène lu ñaaw luñ jël rek tekk waa Cambérène Cambérène neewoon na leen su ngeen ñëwee ñu waxtaan ak yéen ñu accompagner leen ci projet bi te loolu ñu waxoon juguñu ci tey juguñu ci ëllëg kon ñu ngi interpellé monsieur le président Macky Sall yow mi waxoon nanu dem def li waa Cambérène bëgg yow jël nga ndogal daaneel miir bi mais gars yi ba léegi defanu li bëgg ba pare nag Cambérène amul accès ci VDN bi loolu ñu teg ka fan wala ñun dañ war a dem ba relais wala ñu dem ba Tivaouane Peulh door ko fay jëlee loolu duñ ko nangu parce que suñu suuf la ñu jox délai boobu bu weesuwul te li leen wax defuñu ko tali bi fii la ñuy baaree ken kenn dootu fi jaar loolu day leer délai boobu bu rombee te ñoom gisuñu wala waxuñu ak waa dëkk bi dama ni VDN bi laa wax tali bi kenn dootu fi jaar talibi bi la ñuy baare bunt yi juge kam yu juge Dakar dugg fii fu waay mën a génne dañ koy baare oto dootul dugg fii si Cambérène ba keroog ñuy régler li fi ne bare ber tey baa ngi nii léegi mu commencé te bu commencé casse ba dañ koy baare donc oto yi dañuy dévier dugaat fii à Cambérène ñun ñuy euh, di subir loolu non loolu duñ ko fi xaar suñu réagir wul semaine tali bi dañ koy baare boobaa rek dinañ xam ne Cambérène na ngi dóor a jug loolu la ñuy wax monsieur ministre Omar Youm moom la ñuy wax président Macky Sall te nag ñu xam ne lii lii du politique pour ñuy toog ci gannaaw naan ay politique da cee ne newu si ñun suñu dëkk la ñuy kaasal li ñuy def c'est légitime il faut que mu leer lii sunu bakkan lañ ci teg comme ni nga ko waxee woon une semaine lañ leen may bu ngeen réagirul tali bi dañu koy baare waa loolu laa am pour wax leen ko.